a refusé de répondre au dialogue parce que c'était évident que le dialogue servait à liquider Ousmane Sonko c'était flagrant mais le dialogue aussi servait à arranger certains candidats qui eux aussi affaiblissaient Sonko ça aussi le président Sonko a été entre guillemets un peu naïf il s'est entouré de gens qui l'ont utilisé xeexloo ko pousse ko ne ko yow la yow la yow la meneloo ko un combat qui n'est pas le sien Ça aussi, c'est une lecture et une, naïveté. Malheureusement, s'il était entouré euh, d'autres personnes, et je pense que plus, plus lucide, plus regardant, du ko dal parce que mënoo ànd ak nit nag mu ne la nga ne dama bëgg nekk président mu ne la ma ne dama bëgg a nekk président di la wax loo yaay génn tey sooy micro yi ñëwee rek parce que yéen da ngeen aay jox ko micro yi muy wax di wax di wax lam ko jural tey baaxul même si je souhaite que mu génn ci le plus rapidement possible wax nag